عليك صلاة loolu lu muy firi mooy ci yàlla lañu bàyyi ko ci ci te ci moom lañuy ñuy dellu jógee ko nañ ci moom jógee ko mu indi ñu fii ci àddina bu ñuy dellu yàlla nañ fa dellu ci xanam bi rafet. wax nañu ne. boo lëgee bu ñuy dajee ak moom. mu ne bés la boo xam ne nii doom ak alal du jëriñ lu dut ku dikka rek fekk sa xol sell na set na. yal na ko yàlla may loolu moom it jiitu. mu ne aji jiitu ji di Moussa Diassé yal na ko yàlla defal loolu. ñun tamit yal nañu ko yàlla may. ñun it yal nañu ko yàlla may. di jaale ndax mu ne mu ngi xam na ne ja damm damm la mu ngi leen koy jaale gannaaw bu mu ko jaalee boppam. yal na ko yàlla jàng. yal na ko yàlla jàng. buñ sukkandikoo ci waxi baay. buñ sukkandikoo ci waxi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. dafa wax ne niiw ñaari yëf lañ koy jooyee. dafay wax ne niiw ñaari yëf rek lañ koy jooyee. bu dundoon ba defal ma nangam. bu dundoon ba defal ma nangam. wala bu dundoon ba ma defal ko nangam. wala bu dundoon ba ma defal ko nangam. lam la waroon a defal. lam la waroon a defal nag. nga doyloo yàlla yàlla moo ko dàq. boo doylooxee yàlla de yàlla ma moo ko ko dàq. la ko defal. te dana la ko defal bu boobaa. yow lan la nga ko waroon a defal. yow it ko waroon a defal. baxee ko yàlla. baxee ko yàlla rek. moom mi ko jël. moom mi ko jël. te lépp loo ko bëgg a defal moom moo la ko dàq. te lépp loo ko bëgg a defal moom yàlla tabaaraka wa taala moom moo la ko dàq. kon nag yàlla nañ delloo yàlla. kon nag nañ delloo yàlla. daan na ci tegi tamit ne. daan na ci tegi tamit ne. kuy wéttali ko na nga wéttali ko yàlla. kuy wéttali ko rek na nga wéttali ko yàlla. booy dimbali ko na nga dimbali ko yàlla. booy dimbali ko na nga ko yàlla. booy yaakaar na nga yaakaar yaakaar na nga yaakaar yàlla. ku dul koo ku dul yàlla. ndax koo yaakaar ku dul yàlla. bés dana ñëw mu tële wala mu jóg. bés dana mu tële wala mu jógee koo fi. koo dimbale ku dul yàlla. koo dimbale ko ku yalla yàlla. ba noonu. ba tey noonu rek. koo wéttale ko ku dul yàlla. koo wéttale ko ku dul yàlla tey ku doon wéttali ko Moussa Moussa dem na. tey ku doon wéttali ko Moussa Moussa dem na. ku doon wéttali ko yàlla nag yàlla du fi jóg. ku du ku doon wéttali yàlla moom mu ngi fi te du fi jóg. ku doon dimbali ko Moussa na. ku doon dimbali ko Moussa Moussa dem na. ku doon dimbali ko yàlla yàlla nga fi. ku doon ko yàlla it yàlla mu ngi fi. yàlla doy na. yàlla doy na. yàlla nañ ko doyloo yàlla. ko doyloo. ci wax ak ci ci wax nag ak ci jëf. yàlla mën na yàlla na ko yàlla mën na ko yàlla na ko def. jógoon na. ngir daani dooleem. ngir daani dooleem. ngir tëral ay waajuram. ngir teral ay waajuram. yàlla jël ko. yàlla jël ko. ca fam doon liggéey ca fam doon liggéeyee. diggante Brésil ak fii. diggante be. fu mu doon liggéey Brésil ak fii. yaatu na lool. na lool. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci loolu. mu ne jullit bu dee xàll. mu ne jullit bu dee xàll. fam dee. fam dee. ak fi mu dëkk ak fi mu dëkk. ñu denc ko fi ñu denc ko fi. lépp yàlla daf koy masaafa boobu yàlla daf koy yaatalee bàmmeelam. masaafa boobu muy distance boobu noonu yàlla dana yaatalee bàmmeelam noonu. bàmmeel bu yaatu nag ñëpp xëj nañ ci. bàmmeel bu yaatu nag ñëpp xëj nañ ci. damm damm la ndax dafa dem ci ndaw. yaakaar gu rëy ngi yoon ci moom. waaye yal na ñu yàlla wutu ci moom. suñ ko xalaatee ñaanal ko rek lay doon. ba buñ ko xalaatee. ba buñ ko xalaatee. ñaan rek lay doon waaye la mu waroon def lépp yal na fi yàlla. waaye lépp lu a def rek yal na yàlla wut ko ci loolu. ñu koy jaale yaayam di ko jaale Ibrahim. waaw dafa xaw a naaje sëriñ bi mu ne dafa xaw a naaje moom moo taxoon mu yebal Mor Abdallah mu ñëw taxawee ko bi mu ñëwee itamit léegi la jógee ko awnulaahi fii la jaar yeggagut ca kër ga lépp lu mu fi wax rek moom la moom la ci wutu woon ndax suñ ndaw la ndawam la te wutu na ko fu nekk te lu baax rek lay wax lu rek rek lu rafet rek lay def ngeen ñaanal ko moom it mu ñaanal ko jëm ci mag ndax ñu ngi jëm ci mag te moom ndaw la te moom ndaw la te nangu nañoo xuutu ci liñ bëgg te xuutu ci liñ nangu na koo xuutu ci lim bëgg dana ko rafetal te mu ngi koy rafetali tamit ñu ko rek bon nañ ko ñaanal mu ne ñaanal mboolem njaboot gi ñaanal mboolem njaboot gi fépp fu mu mënta tamit keneen dem rek. ba ci imaam Baye Ndongo mi. ba ci imaam Baye Ndongo mi. tey fu Mor tey fu imaam Mor Abdoulaye nekkut moom la fay utal. kon xen bi nu mu mën a toll xam na ñu ko jàppale. kon xen bi nu mu a toll rek xoyaf na ci moom ndax am na ndaw ñu ko yàpp ci li ci loolu. te naka jekki looloo fi nekk rek. ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal loolu. di leen ñaanal yàlla. di sàkku yi tamit mbooloo mi ngeen ñaanal ko yàlla. yàlla na fi gëj. ñun ñëpp yàlla may ñu jàmm. yal yal nañu yàlla may jàmm ñun ñëpp. soxna si wax na ne nañ la ñaanal. mu ne Ibrahima itamit soxna si wax na ne nañ ko ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal. ñu ngi lay ñaanal yàlla. boole lim lay ñaanal moom. boole lim lay ñaanal moom. yal na ko yàlla defal. yal na ko yàlla defal. sa taxawaay imaam imaam Baye Ndongo wax na ko lépp. dimbale yal na yàlla dimbale la lépp loo bëgg a def ci diine lépp loo bëgg a def ci diine ji ak ci mbokk yeeg dëkkandoor gi yàlla gën la ko yombalal yal na yàlla yombalal la ko ci zaahir ak ci baatin jërë ngeen jëf mu ne wasalaamaaleykum wa rahmatulah صلاة الله ثم السلام فطرها